ci UMS muy euh, union des magistrats bu Sénégal euh, ci démb seen ndaje mën ngaa pousser tuuti voilà c'est bon merci beaucoup cher merci à tout à l'heure alors Mortala euh, gis nañ ci assemblée générale bu UMS bi ba ñu jëlee Ousmane Chimère Diouf tegaat ko ci am na ay mbir yu ñu yëkkatiwaat ni ay kàddu muy wàllum indépendance de la justice conseil supérieur de la magistrature ndax amuñ impression d'entendre la même rengaine ndax chaque fois daanaka même yii nii lañuy ñuy waaye boobu ba léegi ndax yëf yi am na tuuti changement Mortala waaw xam nga UMS saa yu dajee euh, maanaam sujet yooyu day ñëwaat waaye bi yoon dañoo taxawaat ci euh, lii nga xam ni moo xew ci Sénégal muy euh, ay nit yoo xam ni ay justiciable lañu jël magistrature di leen attaqué ñoom ñu ñaawlu ko lool te ci seen ndaje bi. parce que war nañu jàpp nag ni ñenn ñi war nañu poser la question Euh, wax ni ñoom ñooy ñan pour juger magistrat yi d'abord pour man euh, parce que pour man euh, bu fekkee da ngay justiciable dafa am benn mandute boo xam ni da nga ko war a am par rapport ak liggéey bi nga xam ni magistrature da koo liggéey da koy liggéey mu nekk ñoo xam ni ay personnes qualifiées lañu xam seen métier moo tax ñu nekk magistrat ñu bañ di xotti war ma jëmale ci ñoom. te ñëpp ci kanamu yoon. te ñëpp yem ci kanamu ñoom. Mm-hmm. pour man euh, il faut ñu respecter euh, liggéeyu magistrature bi te euh, je pense ñun sax euh, rawatina. ñun ñi nekk dans les médias parce que mm-hmm. ñoom ñaawlu nañu également lu fait que quand même mm-hmm. certains analystes euh, dañ leen di yàq lu mel ni xeme ci plateau télé yi pour man nous ne sommes pas mieux pour vraiment di leen porter des jugements de valeurs parce que quand même ñun nekkuñu fi pour joxe leçon kenn Euh, mu nekk loo xam ni pour man ku nekk war na ko bàyyi xel. parce que quand même ñun ñu ñu ngi dem sax vers nos assises je pense le vingt jeu jeudi vingt quatre juin le vingt quatre août euh, incha allah lay la les médias di def euh, leurs assises mais nag comme li nga wax naata dañu nekk ci réew moo xam ni dafa am lu ñuy tuddee conseil supérieur de la magistrature. conseil supérieur de la magistrature boobu ku nekk ci bot bopp bi mooy le président de la république nga xam ni moom dafa am déjà benn institution boo xam ni moom da koo jiite muy euh, présidence de la république mhm. mu jiite waat exécutif mu ñëw nag jiite waat ñi nga xam ni vraiment euh, pouvoir judiciaire à part la mais moom da koo jiite waat ndax moo jiite conseil supérieur de la magistrature ñëpp ñu mm. bëri nag xalaat ni décision yu bëri ci wàllu politique généralement buñ koy jël moom loxoom dafa làqatu ci ginnaaw parce que toog na fi sax daan ni am na ci ay dossiers yu bëri moom moo ci teg loxoom bon yu mel noonu xëy na dem na ba jeexital am jeexital ci nit ñi ñu jàpp ni eh, juge yu kat xëy na tëddeewuñu njaaxaanaay mais pour man Euh, c'est vraiment réducteur ñuy ravale les magistrats à simplement les dossiers judiciaires politiques Hmm, ah, alors que am na yeneen am na yeneen yi dossiers yoo xam ne ñu ngi ciy liggéey suba euh, bëccëg euh, te euh, kenn yëgu ko je pense war na leen delloo quand même njukkal ci liggéey bi ñuy liggéey dañu nekk nag ci benn système boo xam ni quand ñoom amuñu toute la latitude de mën a bàyyi xel ci li ñuy def ci dossier politique yi mhm. parce que le président de la république moom moo nekk euh, président du conseil supérieur de la magistrature te mhm. ñoom yàgg nañ koy xeex pour loolu euh, mën a deñ ñu am seen euh, disons entre guillemets indépendance bi ñuy wax. Hmm. Hmm. Euh, Chérif alors attaques yi mu doon wax Ousmane euh, Chimère Diouf lu bëri li ñuy nemmeeku mooy euh, ci ay dossiers yu nit ñi jàpp ni dafa laalee politique la xañ na ci loolu la surtout mais bu dee yeneen yi la ce sont des dossiers qui passent presque inaperçus. waaw loolu moo dul yoon parce que ñun ñëpp ñoo yem ci kanamu yoon comme ni nga ko te li symboliser justice mooy balance boo xoolee balance bi dafa tëddee njaaxaana jéngut jëm fenn bu jengee rek musiba naaru lay am na am na loo xamante ni moom kenn waru ko nangu à commencer par eux ñoom ñi nga xamante ni que moom de manière générale ñoom ñooy les acteurs judiciaires mm-hmm. maanaam ñuy menacer ay nit parce que ces dernières années li ñu fi gis mooy ay am nañu fi leen taal këru diw wala nga gis magistrat yoo xamante tamit loolu ñu daal muy ay magistrat parce que jox na leen fi ay dossier ñu daal di désister daaw alors que bu fekkante ni da def concours. nga génn nga waat ne da ngay matal justice je pense que xoqatal warul tax nga bàyyi sa liggéey parce que loolu boo ko defee tu as te on a vu ici. des magistrats yoo xam ne je pense que ak matadi la. bu nemmeeku ci ñenn ci ñoom te critique yooyu itam buñ koy def buñ ko jëmale rek ci opinion bi. am na ñoo xam ne ñu ngi ci biir di yàq système bi comme loo mën a gis ci ab métier boo xamante je pense que li naan ay bërëb bi am bi nga xamante moom la ñuy exalté si dernières années surtout buñ ko joxee exemple fii ci dossier Ousmane Sonko yi gis nañ fi ay magistrat yu ci bëri yoo xam mhm. fi mhm. nga gis ko muy le doyen des juges wala nga gis ko le procureur général wala ay procureur yoo xamante ni jël nañ seen responsabilité doxal seen liggéey te mhm. malgré menaces yi xooqatal yi def seen liggéey nam wala te loolu kam la ñuy xaar ci njiit bu fekkante da bëgg gis nañ magistrature bi mooy métier boo xamante ni ñii féete ndaw ñoo njëkk retraité ñi féete mag loolu il mm. fait allusion ak bi nga xamante amoon na fii surtout ci mm. cour suprême yenn juridiction yi nga xam mën ngaa dem ba 68 ans du ñëpp lañ ko may mais bu fekkante ndaw ñi aussi jox nañ leen ay yenn mission yi ñëpp koo doxal ñu jox ko mag ñu doxal ko loolu tamit je pense que gis nañ ko fii ci Sénégal te politiciens yi moomun moomun réew mi ba mm. bu dee dossier politique rek lañ fi gis yenn instance yoo xam chaque jour ñu ngi rendre ay décision nit ñi di ko nangu mu neex la wala mu naqari la maintenant nag justice day métier boo xamante ni tamit ay nit ñoo koy def te nit matut tamit il faut ñu critiquer leen parce que euh, du yàlla du yonent bi tamit euh, loolu il que c'est pas pour rien que ñoom euh, bu bu premier jugement amee bu bu d'accord ñu ne da ngay les critiques li ñu mënta nangu mooy ay xoqatal ay menacé wala ngay kii seen njaboot

ay assemblée générale yi man je m'attendais à ce yenn saa bu amee ñu bañ a dem rek sali di fa tëju ñoom mu neen nañu jël ci ñenn ci askan wi di laaj lan lañ xalaat ci justice naka lañ mën a def ba joyante ko et cetera comme président de la république moom lañ fal c'est pas Macky Sall kese depuis 1960 amee suñu indépendance ba léegi li ñu fi nemmeeku mooy dañu jël doole jox ko njiitu réew tant loolu tamit changé wut président bu fi mën a ñëw ci li nga xamante ni moom mooy wàllu justice parce que bu problème amee danaan le président moom mooy rendre compte c'est pas les magistrats ñoom ñooy rendre compte ba yenn saa aussi mënul leen bàyyee lépp rek jox leen ko et cetera leen wàllu indépendance et indépendance moom ku ci nekk personnellement yaa koy jël sa bopp du président moom moo la koy jox Cheikh Tidiane Diaw waaw je pense que Chérif ak Mor wax nañu lépp mais réew moom justice moom moo ko yor mm. euh, justice fu je pense pour ñu dund dina jafe lool faut se dire aussi que justice bu parfaite euh, amul euh, foog mu am ay euh, rëq-rëq mais man côté bi ma ci gën a intéressé mooy c'est surtout les les magistrats je sais pas peut-être que c'est un avantage métier moom moo leen ko may mais on les prend des fois comme des citoyens à, à, à part quoi te je me dis que déjà que la justice pose problème ci wàll bi nga xamee ni euh, ñu bëri ñu ngi remettre en cause indépendance justice bi dès l'instant que ñu koy remettre en cause ça veut dire que y a problème quelque part et problème boobu nag su amee euh, je peux pas comprendre à chaque fois euh, kenn su attaqué magistrat outrage à magistrat dañ lay tëj bari na ci yow Diomaye Faye actuellement li ko ci kaso bi loolu bokk na ci. mais seen corporation bee ko may aussi. ba Barthélémy Diaz euh, tëj nañ ko fii ci euh, loolu bon c'est vrai seen corporation moom moo leen ko may mais aussi wax ngeen ko fi c'est des humains ñoo xamee ni dañuy juum peut-être que am na ñoo xamee ni euh, da dañuy far yooyu yëpp da ciy am moo tax bon je pense que ak contexte bi ñu nekkee je pense que. ci mën ci wàllu liberté war nañu ko gën a xoolaat surtout délit de li ñuy wax naan dañuy tëj ay nit ci ay délit d'opinion loolu yëpp bokk na ci. Mm. Euh, je pense que c'est des gens yoo xamee ni normalement probité bi nga xamee ni moom moo laaj seen métier. Mm. am nañ ko waaye war nañu tamit gën a mën a ubbeeku. Euh, ñu bañ leen jàppee comme des citoyens à yoo xamee ni mm. loo wax ci ñoom loo xamee ni neexu leen wala ñu jàppe ko attaque rek euh, ñu mandat ñu mandat de dépôt la je pense que hmm. loolu war na mën a ñàkk. Euh, Cheikh Diop noo ko gisee ndax même gis-gis bi nga am euh, ci magistrature beeg ñi muy doxee. Hmm. ak démb yi ñu yëkkati. Hmm, yi ñu yëkkati foog naa ne ñoom li nga xam ne moom moo di ñaaxaanaay lépp loo xamante ni itam ay kàddu la foog naa ne war nañ ci mën a bàyyi xel bu baax a sànq Chérif ñu ngi koy wax lu soxal itam implication askan wi itam loolu lu jaadu la ci yenn ci ay assemblée yoo xamante ni euh, ñu ngi koy euh, amal ndax bëri na ci ñoom ci loo xamante ni itam kàddu yu ñuy dégg wala yu ñuy tontu ci ci ci ndaje bi donc ci askan wi maanaam euh, ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di sénégalais la bàyyeekoo donc jëm ci ñoom ñu gën a bàyyi xel ci loolu itam leneen ci loo xamante ni ministre ministre mi ngi ko doon wax euh, ci wàllu euh, affectation yi ak yeneen ñu xeetoo ñoom itam ci seen biir euh, saa su ne yaa ngi dégg ñu koy wax ñu ne wàllu sanction la jëm ci loo xamante ni itam dañ koy teg ci seen kaw ci lu toll ci ñaar fukk ak juróom donc ñaar ci ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di góor yi cinquante sur cent neuf ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di soxna yi exercer wuñu fudul donc en dehors de de de Dakar lu ni mel war nañ ci mën a bàyyi xel bu baax baax. te xam ne euh, Sénégal 45 département la. absolument merci beaucoup euh, Cheikh alors euh, léegi dañuy jàll ci beneen rubrique muy un jour au Sénégal un jour dans le monde.